waaw mbokk sama gaal ñu ngi fii ci Kayar ba léegi grand na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. Mor Ndiaye. Mor Ndiaye bii mooy ban bergerie. bergerie Daaru Xafoor. Daaru Xafoor fu mu nekk. waaw ah, nootoo nootoo la nekk la bergerie bi waaw mais Daaru Xafoor mooy sunu kër. Serigne waaw. tey euh, euh, bergerie Daaru Xafoor kañ la taxaw ci élevage. Euh, mi ngi taxaw ci maanaam. 2017 la tàmbali. waaw foofu fin 2017 la tàmbali. lan moo la inspiré nga dugg ci laadum. waaw gi dama judd ci yor nag. Mhm. mu fekk samay wajur di yar samay maam ñëpp di ma yar di yar te fekk tombeek sama maam tamit moo ma yaroon foofu laa jëlee virus bi daal lépp luy mala nag moom dama ko doon yor waaw. mais damaa laaj ci gars yi léegi ñu naan moom moom xamul dara ci xar new fi ma ko di nga wax. léegi ku la ko yoral. waaw rakk ji nag ñoo ko yor. rakk yi ak mag ñi daal ñoo ko ak soxna yi. ñoo ko yor ma mhm. nga gis ngeen exposé benn maal kii mooy kan. kii mooy Mida. Mida waaw Mida Salaam. Mhm. Salaam Darou Salaam Darou Salaam magistrat. Ah. kay magistrat am na lu ci laaw. wax yàlla moom. Uh-huh. bëgg naa ci moom lool di sant Baye Laay nag moom moom moom mooy lépp. mooy lépp parce que tamit sax moom moom la. waaw fan la jóge mi ngi jóge ci ba benn góor gu ñuy wax baay Baye Abdoulaye Diop nootoo moom it day yar waaw moom ko jaay waaw da moom dama ko baaxee rek moom kii daal awma njëgam sax laay wax wax yàlla dama dimbali rek ba mu ñëw ci yow mu toll bi ma koy jox nag booba mi ngi am mois ba mu na sax waaw tey euh, instant bi est-ce que am na lu mu liggéey loo xam ne joxe nga ko wala mi ngi mi ngi def production yi moo moo tax boo déggee ci biir wax ji man la awma njëgam ndax ndaxte dama ko may parce que bi ma ko joxee wax dëgg yàlla am naa satisfaction. jur na fa ay doom yu doy waar. yi xaw naa ci yàgg yàgguma ci mais mbote yi ma bég ci moom ci moom laa ko njëkk a gisee. Uh-huh. wax dëgg yàlla. ok kon uh, tey dama gis mu den benn femelle bu noir et blanc. ñu xaw a niroo. waaw lu mu demee noonu. waaw boobu moo ma ci laajee tamit ndooleen la moo ma ko dooli tamit. moo ko paa bi moo ma ko joxaat. waaw rakkam la nag ñoo bokk ndaay ak baay. xar bi bi mu dendee la. léegi nga bëgg a ñëw jël femelle bi ci moom. waaw beneen dama koy wutali. jëkkër waaw ah, waaw. waaw waaw pour croiser temps yi quoi. waaw ok dolli. ok dama cee doyalul ci moom daal maanaam. ah doyaloo ci kii ah. waaw kon euh, instant bi yow euh, lan nga bëgg def ci élevage. ah bëgg naa ci dox jéego yu mag a mag a am naa ci yéene jooju à lay doon xamna naa ca kanam lay doon xamna bis dina musa ñewat nga introsé waat uh-huh. baba dina la doli wat uh-huh. inshallah kon dal yow da nga dafa melni affaire beug beug la dal beug beug la waaw mom lay wax paa bi leg man ko man wutuma xaj da daanakaan man na len xol di beug rek suma stressé sax suma suma wote uh-huh. ba gis xari rek da daanakaan lepp day wàcc wax deug yalla ma ma ma instant bi investissement metti wul lo bëgg du metti bëgg-bëgg mom moy lepp mbir boko ko lo ci def rek do dan do ko yëg. noota guy jamono élevage bi nu mu fa demee est-ce que élevage bi bëri na fa doole. waaw avant eh, ak ak avant moom metti woon na quoi mais pour l'instant gars yaa ngi am yakar bu baax. parce que après année yi ñu weesu ak ak fi mu toll nii am na différent quoi oui oui. kon euh, tey bu ñu boo ñu doon teetal ak numéro bergerie bi loo ñuy wax. waaw da ngay xool ci base bi rek. base bi mooy loolu. ko kay mooy 850 885 62 54. waaw 580 76 588 35 00. waaw famille yi ma fa gis yaa leen juddule wala. famille yi waaw am na yu ma si juddule nag. Uh-huh. mais am na yoo xamante ne dama ko war a jëmale na jënd waaw. Euh, lan moo la indi Kayar. Kayar dama ci ñëwoon participer parce que ñoom dañu cee woowoon ñu ñëw rek ñu ne leen fi exposé waaw. kon Kayar ak Nooto xanaa soriwul. soriwul soriwul de. Ah. waaw macha allah ñoom it ñu fekk leen fi ñu baax lool teral gi teral ñu façon teral bu ne quoi. di leen waaw euh, xam naa ne woo nga sa waa ji dafa naa ni moom moo nekk ci xari waaw kii nag Cissé boo gisee man la moom kii mënuma dem te santuma ko. ba affaire bi taxee ba léegi lépp moom lu Papa Dieye wax moom moo moo koy gën a gaaw sax lu ma daal daanaka moom ci la bokk mooy première xar dama sama frère xam nga àllarba laa fi ñibbisi sama frère bi moo fi newoon waaye bi mu ñëwee da ko fay wàcc dem yoonam dem ñëw ba aussi du fi fanaan moom moo géré lépp wax dëgg yàlla ma ko dem wax ba dem te ko maa koy ñaanal daal li mu bëgg ci élevage yàlla na ko yàlla may. jël naa ko sànq sax ci boxeur yow la ko nekkee it. borom waaw waaw ñu ziar waaw mooy kii waaw ah. paa bi ngay wax sax moo xam. Pape Pape kii maa ngi koy sant grand mor. grand grand maa ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla ndax xeeb ma mënoon na ni gone la quoi yenn saa yi damay woo di ma laaj sama xalaat chaque jour chaque jour. ci élevage wax dëgg yàlla xam nga mag mu toll nii. xamal oyof oyof waaw waaw oyof gi moo tax. yaa yaa mën a gérer mënuñu ko bañal dara. wax dëgg yàlla ay champion la yor nag na ko bàyyi xel sa xam ni moo ngi ñëw wax dëgg yàlla. incha allah dina baax. jërëjëf merci. merci beaucoup kontaan nañ lool nag. waaw dama la daan suivre lu bari nag. mais <laughs> xam nga boo nee fële moom mooy lool da ngay. ci ngay foofu rek ci ngay fi ngay xool di mën a bokk xam li xew. waaw No.